liir nañu commentaire yi ci vidéo yi ndax nag kuy def ay vidéo su fekkee ne yàlla may na la ko nga mën a liir dina jaadu ci yow ngay liir di xam li nit ñi xalaat ci li nga wax ñu waxee ko objectivité walla ñu waxee ko subjectivité mooy waxe seen bakkan wala waxe xam-xam bañ a parparloo lu ci mën a xew wër ngaa xam li ñuy wax ñoom ñëpp loolu mooy tax nga mën a gën a xam fan ngay teg sa tànk ak ban taxawaay ngay am ak itam ndax li ngay def ban impact lay am maanaam lu muy jeexital ci ñi tax ngay wax loolu ñu wax baromètre moom la baromètre mooy nattukaay boo xam ne bii ci ngay xam dëgg dëgg dëgg liggéey bi ngay def ndax li ko taxoon a jóg yaa ngi ci loolu nag yaa ngi ciy nemmiku ay nit li ci gën di bànneex mooy ay ndaw ndax ñu mag ñi sax wax dëgg yàlla loolu lañ doon xaar ci ñoom waaye ay ndaw yoo xam ne yii lim bi jéggi na dayoo macha allah nga gis ñuy rafetlu li ngay def ñu ci bare dañ koy teg ci xam-xam amul parparloo amul topp bakkan waaye nga gisit nag ñoo xam ni danga leen di xaw a yërëm ndax day mel na dañoo raxas seen bopp yi duy ci loo xam ne lii sañatuñu koo dindi ñoom booy seetlu seeni commentaire da ngay gis ni saa yoo xamee ne am na ku fi wax ci réew mi loo xam ne lii danga koy war a mën a tontu ci biir lislaam rawatina léeg-léeg sax bu dee ci niti àddina yi du garaaw googu garaaw waaye ku wax ci diine ji boo koy tontu yow da ngay mel na ñoom dañ lay considérer yéen ñaar yow mi moom mi wax ak yow mi tontu comme ay mbër yu nekk ca làmb ja ay supporters topp ci ñoom fans club fans club bi nag moom ña nga xam ne ñoo ko constitué maanaam supporters yi ñoom seen yoon ci nu seen mbër mbër mel mën naa bëreeg mënta bëreeg mën naa bàkkoog mënta bàkkoog ñoom daal li leen yitteel mooy na daan da ca des seen yoon newu ca li nga xam ni moom ngay wax ci ñoom nay jàmm rek yéen a ngi koy gis ci réew mi signature de contrat yeeg commentaire yi ci avant bëre beeg lépp nag mooy lii ngeen di seen ci réseau sociaux yi kenn ku ci ne li muy mën a dégg daal mooy ngay wax li ko neex li ko neex ci nitam wax ju mujj ji nga xam ni moom lañu ñu mujj wax mu jëm ci ki nga xam ni kii moo doon wax ci moo doon wax ci ñeenti jabar ku ko weesu ba dem ci juróom li wérte wóor mooy moom amul dalil layiwul indiwul benn tegtal bu ñu mën a sukkandiku loolu mooy li wóor waaye boo xoolee commentaire yi dangay séen ay nit di ko layyil di ko jéem a layyil bokk naan waaw ndax ku am juróomi jabar danga génn lislaam loolu mooy néewub xam-xam dëgg dëgg dëgg nag ba jéggi dayoo bàkkaar du dindi nit ci lislaam loolu la nit ñi war a xam ak lu mu garaaw garaaw garaaw garaaw xam nga ñeenti jabar yooyu ngay wax kee juróomeel am na lu ko gën a garaaw loo xam ne lii du la génne ci lislaam mu am na lu ko gën a garaaw mooy inceste inceste mooy sëyëg koo kam xam ni kii sëyëg moom daf laa xaraam walla iyaazu billah wal iyaazu billah sëyëg ki koo xam ni kii sa rakk la walla sa mag la wala sa ndey loolu lislaam da koo xaraamal xaraam gu puje bu puje goo xam ni gi dara tiimu ko ci ñaw ñaawteef waaye ba tey du la génnee ci lislaam de eh, jullit bu sàggan bu sànku bu réer wala iyaasu billah bu alku waaye ak bul nag ci ñu lay génnee ci lislaam boo deewoon ci ginnaaw jëf jooju dañ lay jullee defal la li ñuy defal jullit li ñuy defal jullit moom lañ lay defal boo reyee nit moo gën a garaawati yow boo reyee nit ginnaaw ba ñu jàpp la rey la dañ lay defal li ñuy defalub jullit bu dee ci fu réewum charia dañ lay defal loolu dañ la koy defal kon bàkkaar ci gàttal ci tënk ci wax ju gàtt te leer bàkkaar du dénnee nit ci diine lislaam lislaam boo ciy génn dangay wax walla nga jëf lu la wane ne génn nga ca dangay ngay taxaw weddi yàlla suñu borom tabaraka wa taala walla nga weddi ne alquran jugewul ci yàlla kon dàq nga diine ji lépp lu mu constitué ba ci yónni gi ñu yónni yonent bi ku weddi nag ne yonent bi yoon ñu ko génn nga ci lislaam ay jëf yu mel noonu ngay mën a def ñu ne kii kat murtad na waaye bàkkaar lu mu rëy rëy rëy soo ca yéenewul rek murtad doo génn ci diine ji loolu soriwul ak lii nga xam ni moom la sunu mbokk moomu waxati Modou Fall nee na kër goo xam ni gi jigéen ju musóorul dafa nekk malaakam yërmande du fa wàcc loolu wérul loolu wérul li koy weddi nag mooy waxi suñu borom tabaraka wa taala yàlla ba muy wax ak muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam naan ko wa qul lil muminina yaxdudna min absaarihinna wa yaxfazna furujahunna wala yubdiina ziinatahunna illa ma zahara minha walyadribna bi xumrihinna ala juyubihinna wala yubnina yubdiina zinatahunna illa li buulatihinna aw abaihinna aw abai buulatihinna aw abnaihinna aw abnai buulatihinna aw ixwaanihinna aw bani ixwaanihinna aw bani axawaatihinna aw nisaaihinna aw ma malakat aymaanuhunna aw ittaabiciina gayri ulil irbati min alrijali aw iltifli lazina lam yazharuu ala awraati nnisaai yàlla moom moo waxal boppam ne jigéen bu nekkee ci biir intimité familiale am yàlla moo lim ne ñii nga xam ni ñoom ñoo bokk ak moom mooy borom këram baayam moom baayu boroom këram ay doomam yu góor ak doomi boroom këram ak ay frère ak ay ay doomi freeram ak doomi sëram yu sëram maanaam mbokkam yu jigéen aw wala boog ay jigéen wala boog ña nga xam ni ñi ay jaam lañu yoo xam ni yii maanaam comme jaam yi nga xam dañ leen daan tàpp dañ leen daan tàpp nga xam ni e, ñoom mënatuñu ci ci ci ci ci ci ci ci ci kifin ci ci góor wala boog ñi nga xam ne ñii dañoo àgg ba ci ñoom xàmmeetuñu ay xale xamaguñu ñoom e, man xàmmeeguñu awra xameeguñu awra euh, ñooñu ñëpp suñu boroom lim leen ne ñii daal euh, boo nekkee ci seen biir sañ nga muri ko maanaam sa bopp feeñ walla sa përëg feeñ walla sa yooyu mooy awra yi nit mu awra yi jigéen ñu ne loolu may nañ la ko ci cadre familial ci biir cadre familial saa yoo xamee ne am na ku leen rax suñu boroom nee na nga nga nga defaru nga defaruwaat soo amee koo xam ni bokkul ca ñooña day jaadu ci nga defaruwaat loolu la la lislaam may loolu la lislaam may kon yow boo nekkee ci sa biir cadre familial toog ak say sox say mbokk sa jëkkër say goro say këfin ainsi de suite ñooñu nee na ñooñu amul problème ci nga mureeku ci seen kanam waxuñu nag mu reeku ba dung wala ngay génnee nag awra bu ñaaw ba nag waxuñu loolu déedéet waxuñu loolu su fekkoon loolu dong la malaaka du dugg ci kër goo xam ne gi jigéen muuroo fa kon xanaa mbedd yi moom àddina tukki na fi xanaa kon mbedd yi xanaa bureau yi xanaa kon wàccatul ci Sénégal malaaka moom kon wàccatul ci Sénégal bitim réew nag moom waxaalew ko foofa nga xam ni moom lu bon bon Sénégal di nga gis ñaar wala ñetti jigéen yu mooru malaaka li ñu war a fas ci suñu xol nag wax ji jeex mooy yàllaa ko yónni te yàlla moom du yónni ku ñuy kar dara dara kenn mënul ci malaaka lu tolloog tombub ñuul ñuul amut kon ana suñu boroom nag sañ-sañam ak kàttanam ak mën-mënam te nag mbokk yi nañu laaj suñu bopp jigéen ñi faatu te fekk muuroo ñu ku leen di jël si xanaa du malaaka malaaka mooy rocc si seen roox loolu xam ngeen ko sax na wér na te bopp neen la leen di fekk léeg-léeg en tout cas ña ca Europe ak ña ca Amérique bari na ci ku ku dee ci sa lal wala accident bopp neen nga def te malaaka moo dikk ca waxtu wa ngay dee di dindi sa sa sa sa am na ñoo xam ne sax waxuma la bopp neen waaye yaramu neen sax faf lañ leen di fekk di leen jël si te malaaka leen di jël si kon wax ji nañ ko xool yàlla <laughs> du mag muy yónni gune ñu koy kar de yàlla du mag muy yónni gune ñu koy kar bu ko defee nag wax yu mel noonu day jar di seet di xool di seetantal ki nga xam ni kii daal boroom xam-xam la jàppe boppam wax ay wax wax yooyu nga xam ni moom la wax keneen dégg ko jàpp ne loola moom gis-gisam la moom gisewul noonu ki yàlla dimbaliwul mu xamas lëf da caa war a téye làmmiñam da caa war a téye làmmiñam mbir mi du championnat du ab jongante déedéet ñaari boroom xam-xam bu ñuy wax ku xamul da cay génn donte nag kenn ka daa ëpp moroom ma xam-xam man moom xam naa ne ci ñi nekk ci suuf laa bokk d'accord naa waaye nag du ma wax lu dul xam-xam de du ma ci dugal sama bakkan bu ko defee bokk yi ñu yemale kàddu yi fii ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.